ak jërë ngeen jëf mbokk Sénégal jërë ngeen jëf mbokk àdduna rawatina yéen ñi siiw seen si li nga xam te ne mooy Sénégal ak Wassare Lamb tey nag ñu ngi fi nga xam te ne mooy euh, Fass seet fi nga xam te ne mooy Ada Fass doomu Dakar bi nga xam te ne démb amoon journée bu am solo mu seen diggante man qualifié numéro bi boo fekkee arène nationale tey nag seet ko comme ni ñu ko defee rek avant pendant ay après dañ koy topp jox lu ñu xam ne ñu siiw dañuy bàyyi xel ala ñu fekk la fi nga xam te ne mooy sa biir kër nga ànd ak mafia yi ba léegi mais nag ñu ngi lay nuyu di la siyaar ñu jiitu loolu daal ñu ngi waxtaan waaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou al Misbah Karafal maa leen nuyu di leen fay di leen dalal bu baax mhm. ah, dañuy julli dañuy julli ah waaw Coly dafa nekkoon dafa nekk ndaanaan ma bàyyi jéegoom si làmb def ay preuve ma def samay preuve waaw waxoon nañ ma ay yeneen adversaire nag mais moom laa gisoon pour bëreeg moom ndax de champion la te champion doo bëggee nekk champion si làmb il faut nga bëreeg champion waaw loolu kese moo tax ñu jël ko. Uh-huh. Uh-huh. posé woon nga la. non sama staff la sama sama sama sama woon rek. waaw Coly dafa nekk champion. ndaxte ñu ma waxoon ñoom ñëpp Coly euh, moo si gënoon nekk champion. waaw koli moo si gënoon nekk combat boo xam bu mu ko jëlee nekk combat jànk. ndaxte ñun soxlawuñu loo xam ne dañ euh, bu mu ko jële suñu subateer euh, duñ ci duñ am dañ ci kii quoi. Ah, day oyof ñun soxla ñu lu oyof ñun bëgguñu ko ñun koli bu ñu koy jël xam nañ ne am nañ combat te démb feeñ na waaw feeñ na démb. Mhm. Euh, man damay maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom Ada Fass euh, damay ñëw ci sa signature bi parce que dama gis sa signature nga taxaw ne musuma wàcc ci làmb mais damay wàcc ci làmb ndax dinaa ko daan jël bu rëy loolu fan nga ko tegoo luñ la déey la wala loo gëmoon la. non instant boobu bu ma koy waat yàlla xam na ni sama yaram moo tàngoon ak tension làmb fu mu toll. mais damaa gëmu ne dama koy daan te yàlla may na ma dem si kawam. mais lan moo tax nga ne du musuma wàcc làmb mais tey dinaa wàcc làmb ndax dama koy daan jël bu rëy. non làmb yi daa daa dafa dafa amoon lu tax moo def loolu ndaxte làmb dafa demoon ba nekkul moom moo ko doon bëree. waaw mm-hmm. ah, moom moo ko doon bëree xam naa loolu. moo tax ma doog ne yàlla moo fi ne loolu mooy yàlla moo fi ne. ci biir communication bi dafa am noo waxee. Mm-hmm. am ñoo dugal ci biir làmb ji. Mm-hmm. ba ñoo dugg ci biir làmb ji. nga bëgg leen génnewaat ci biir làmb ji lan moo waral loolu. donc génne ma leen si làmb ji ndaxte ñoo ñoo dugal seen bopp si làmb ji. non mais yow yaa leen ci dugal ndax yaa ne du yow ak moom. man dugalu ma leen si làmb ji ñoom ñoo dugal seen bopp si làmb ji. ñu ci dugalee seen ah, gis na ko démb. yor nga say bët. non yow yaa leen ci dugal moo du dugal naa ñu dugg si. Mhm. moo tax daan naa ko. non man si séance bi laa ñëw ñëwaguma ci làmb ji. dugal na si waa waa wa Tarkindaa yi waaw. dugal ma kenn si làmb ji ñoom ñoo si dugal seen bopp. ñoom si boppam man duma wax tur ndax tey man ak Coly dëgg la woon te jeex na démb jeex na voilà. démb gis naa fa Siteu. mais doom ndeyam la lu mënul ñàkk la. doom ndeyam bu xew la day teew. waaw doom ndeyam la. moo yoonu yoonu képp koo xamante ni Siteu moom lay àndal démb ñëw na gunge Coly ci làmb ji parce que démb bi ma laajee Siteu lan ngay conseillé euh, kii nu mu tuddee Coly Faye dafa ne ma lu mu def baax na amatul daal lu ñu koy conseillé ndax li ñu waroon def ak moom yëpp def nañ ko ak moom. mais loolu da war gunge ko mais moom ku ma gunge na xam koo waree bañ ma xam moo tax démb loolu dafa feeñ si géew bi affaire ay wax yor ay mu ko jëf la wax. ma ñëw ci parce que am na yu bàyyi ci xew. non deuxièmement ba ci biir làmb tamit du règlement de compte ndax man règlement de compte dunu ma ko si làmb mm-hmm. ndaxte ñëpp ay sénégalais lañ làmb sport moo ñu boole rek waaw mm-hmm. fair play la mm-hmm. waaw. bu ñu arrière tuuti lañ fa doon liggéey rek. lu ndaw kon lu may wax rek lu ndaw lañ fa doon liggéey te li ñu fa doon liggéey feeñ na démb waaw lu ndaw la woon rek. li ko fi yóbbu est-ce man sama visa bu na loolu kay de waaw. dañuy sant yàlla bu baax. non dama doon liggéey sa waay lu mu fa yóbbu man xam naa ko dama fa liggéey man lu ma fa liggéey maa ko xam. yéen xamoo lu fa doon liggéey. yow mi toog fii xamul man xamoo man loolu man lan moo ma fa yóbbu mais man xam naa lu ma fa yóbbu yow mi toog fii yow jàppale toog nga fii rek di yeew di ah, ndekk maa ngi fay dem liggéey ñëwaat voilà. Ah, mais chaque jour ñu ne risque sama kanam man dara nekkul risque sama kanam dañoo dañoo doyloo yàlla gëm ko jiital ko di liggéey boo ko defee rek doo ah, dara du la man ko dul qualifié da jomm ma si làmb te incha allahu rabbi lu si kanam raw li bët waaw. léegi damay dugg si ci biir stade bi bu ñu dugg see ci digg géew bi Ada li nga def ci digg géew bi temps bi nga fa def lépp buñ ko xoolee est-ce que ndax bi dugg see bi nga ñëwee teg say ci mukaay bi nga toog ci digg géew bi dafa bàyyi ñu ci bàyyi nee nañ démb làmb ji da ko doon lijjanti temps bi nga def digg avant ngay dem teg sa ci temps boobu nga fa def lépp pour lan la woon. lijjanti làmb man dinaa lijjanti làmb. ñu ci bàyyi loolu la ñu wax xam nga man li gars yi wax yi maa la ko yéggee tey déggoo ma yow man na Ada Fass mu ngi gis mu lijjanti làmb sa waay. mais li nga def temps parce que mba yow dugg si nga mbayu ndaw yi dugg seeguñ mbayu ndaw yi dugg sañ ba def li ñuy def ci géew bi ba génnaat dem nga toogaat fa encore. ndam yàllaa ko yor amul lijjanti làmb amul dara loo gëmul lu nekk si yow. jéeli bu ko daan dem moom gëmu ko ba léegi nii gëmu ko. dama ko gëm non bu ñëwagum ci jël bi nañ ñëw foofu ci wàllum préparation mystique bi. ma ne man lijjanti du ma lijjanti làmb yàlla moo yor ndam chaque jour dañuy indi yóbbaale suñu ndam esaat ñun. déggoo ma de dañ koy yeew di ko fanaanoo di ko ndéggee. waaw nga ñëw. aada nga ñëw tuus def li nga war def def say bain jaabante supporter yu jug nga jékki gis Bébé Diène ñëw ñu jékki-jékki gis Gris Bordeaux amaana Coly Faye bi muy ñëw am na ñu bari ñu topp ci gannaawam mais bi ñu moo ñooñu ñëwee jiitloo ci làmb ñëw doole la moment boobu lan nga yëg. waaw ah, loolu sant yàlla rek ndax ñooñu samay waay lañ ngir sama grand la bi bu jëloon sama waay la maanaam moom depuis temps benn la. Hmm. yàgg ànd. ko gërëm bu baax di ko ñaanal mu suñu borom may ko ndam bi bu jëm hmm. ngir sama grand la moom mooy suñu jiit fii. mooy Tigre de mooy suñu grand. waaw moom lañ fi teg daal. ñëpp mooy ñu njaboote waaw mooy suñu grand Gris Bordeaux. gis naa dem geste bi bu baax kontaan bu baax a baax aussi Lac Rose Pape Ndoye waaw Galas ah, ah Bamba borom Rëbës Xaadim Dóobul ak gërëm naa leen bu baax aw ma seen fay ndaxte démb mel ni seen bis la yeb ànd ak man. gunge ma ba si biir géew bi waaw conseil ma suñu borom may mu gërëm naa leen bu baax. nga ñëw ci diggu géew bi bi bi lépp jeexee mu des sa diggante Coly Faye Coly Faye bi ñu gis bi mu yegsee ci digg géew bi quelques bouteilles la andi wala boog ñaari bouteilles la andi mais ñu gis nga andi bouteilles lu bari jëlaat sa temps encore ci biir géew bi ñu ci bay ne Ada ba tey làmb ji leeragul ci boppam sotteeku woo yaa ngi taxaw di calculer di woote di wuyu di jaabante non mais mystique bi faw ñu dugg ci aada aada mystique bi faw ñu dugg ci waaw non lapin moo mujj xam nga fu mu jugee lëg bi lëg bi lëg moo mujj non parce que pièce boobu pièce boobu faw ñu ñëw ci dañoo gis ne pièce la ñu lal waaw pièce la lal mais ci biir géew bi ñu ci ba ci biir géew bi ñu ci ba na aada faas Ada Fass dafa am lu muy xaar wala dafa am lu muy déglu moo tax muy rey temps ba ñu xoolee abit yi ñoo ngi lay signalé temps bi jeex na temps bi jeex na mais li di def di def li nga war a def ci biir làmb ji lan moo waral temps bu bari boobu nga jël ko ci digg géew bi. léegi moom moo yóbboon stade na ay temps ak yooyu man naa daan waaj rek ndaxte loolu moom fa yóbboon voilà. am na benn moment mu ñëw ci yow am na benn baat bu mu la wax bi ngeen di waaj a bëri am na kàddu bu mu la wax lan nga ko def ba mu wax loolu li mu lay wax. wax na ma lu ne. si géew bi wax na ma lu ne. loo ko def loo ko def ñun moomee ñu wax. Mhm. ñun bu abi ne prip lañ mu ne. abi ne prip moom sa waay. lu ko mënti mhm. doon si àdduna abi ne prip force di nga gis leneen ku dul Ada Fass. Mhm. ñu ci bari na leen sacrifice bi sacrifice bi mooy lëg bi ñu ci bari loolu lañ wax. yow ba léegi yaa ngi si mystique bi. non mystique bi ci la bokk parce que yow da jël sa temps non da jël non damay ñëw ci làmb ji damay ñëw ci làmb ji. dama ñëw ci làmb ci wàllu mystique bi parce que ñu ci bëri nee nañu euh, bu fekkee danga doon jël da doon jël lëg bi di ko teg foofu danga ko fa teg mais da ñëw sacrifier ko li fay parce que da ngeen ñëw ba ci tànkam xam ngeen ne bu ko fa tegee li ngeen bëgg dina ko def ngeen ñëw ba ci tànkam tegal ko ci lëg bi mu tombe seen piège yéen sa làmb ji ah. ngeen foofu. Euh, ma bàyyi la nga ñëw ci làmb wala ma dem ah. ñu gis euh, abi sifflé sa diggante ko li fay nga mel ni ko ko ragal nangu loo taxaw bu gëddee nga daw su la bëggee jàpp nga daw bu bëggee xeex nga daw lan la woon da bëggoon xam li mu andi wala boog da bëggoon ragal loo sa bopp ba mu ñemee la. mais daw maa ko songu maa def action. non mais gis nañ mu ngeen jàppante mu bëgg la doo nga daw su tegee tànk nga reculer. moom moo daw reculer dem saako yi ma topp ko. mu dox sa kaw. saa noonu moom luur la. day mhm. direeku taxaw moom du ma xaw a arrangé. man maa ko sut relance il faut ma mm. dox il faut ma am il faut ma def déplacement pour mun ko juumloo. Mm-hmm. daan ko si ñàkk équilibre. toog si kawam. champion la. waaw. dama ko nax. ndaxte làmb ji saa saa sama làmb rek nii lay demee. saa su ne ñoom dañuy foog ne man maa koy def sama adversaire la koy def chaque jour man may indi affaire du mag affaire la làmb au niveau. ndaxte man sama làmb jëm xale buy andi affaire bu mag. au niveau quoi ndaxte instant bi ñu suñu niveau la mun nañ mun nañ dëggal mais si biir géew bi comme ak beneen mooy ñëw. dañuy respecté suñu adversaire euh, jox ko lu moom waaw. ndax ndam rek dama bëgg nga bëgg ma ci ci ci ci ci ni nga ko daanee. moment bi mu lay daw di jël sa tànk di forcer. Mm-hmm. nga bàyyi ko mu dugg yaa daw jël tànkam yaa daw jël tànkam faaxat ko. mu ñëw waaw mën na xaw ko dóor lii. mu mu defee ne bu defee ne dama koy dama mu daw ñëw mu wér bootu dóor ma plaqué ndax ma ma loxo bi. loxo bi muy àppi. loxo bi moo la teg app. loolu oh, laa laa aj waaw bi nga am ci biir làmb ji maturité bi nga am ci biir làmb ji fan nga ko jëlee. parce que nga bëre ñu mel ni waa caaro yi waa jàmm gën ñu ñëw ruube làmb ji nga ànd ak sa sérénité toog calme te yooyu yëpp ci yow lañ ko woon xaaraa parce que yaa gënoon bëgg làmb ji yaa gën a nekk xale maturité boobu nga am. fan nga ko jëlee ñu ma dar rek samay grand samay grand ñu ma yàgg dar rek ndaxte ñoom duñ ma may dara si dara duñ ma may dara ndaxte ñoom dañ ma yàgg. dañ ma yàgg dar mhm. tamit boo demee ba ñëpp di la conseiller mhm. ay kilifa jug ñëw di la conseiller ñu yëpp la il faut nga xam nooy bëree il faut nga xamee il nga xam nooy demee si làmb ndaxte ñun nekkatuñ lu ndaw mhm. buñ jugee ndakaaru ñoo jug tey ji boog suñu làmb xalaatuñ dem di def yëfu xale di topp public bi wala def leneen lépp làmb bu ñu amati dañuy teey lépp làmb lu mu laaj dañ koy def voilà Mm-hmm. Euh, Ada xaw bis moo toll ah, moo tolloon noonu rek ndaxte démb ndam rek moo ñu doon arrangé ndam rek waaw ah, ndam rek moo tax ñu bëree noonu ah, moo tax ñu ndaxte démb tout temps yi dañoo bàyyi seen lépp barke Serigne man ñoom boog aw ma seen fay xale yi. billaay wallaay talaa ñoom gën a sax bëgg combat bi ñoom laa ko bëreel lii rek laa doon mënoon fayee ndam ñu kontaan billaay wallaay non man loolu wàññu si man dara sawaay na woon dëgg la ñoom ñëppay ngembu sawaay ñu def ko tournoi si jour boobu benn bis sawaay man lu may def man dama ko dama ko ñemee waxoon naa ne ko man lu may def dama ko ñemee man bërëb may def dama ko ñemee ragaluma ko làmb laa am barki képp kuy takk ngemb man bàyyi ma la sa xel si làmb ndax damaa gëm sama bopp mais cër am na waaw ah, jox naa leen cër ko ndax dañoo mag juruma si làmb te yàlla boole instant bi booleeguñu waaw ah, ku nekk nag da jox cër sa sa bopp bu la joxee cër da nga jox cër sa bopp xam ne da la jox cër man du ma wax kenn du ma wax si benn champion si dara ndax instant du man ak ñoom mais bu demee ba yàlla boole ñu sa dinañ xam ne ne xale bu maa gën a ree Coly am na doole koo gis xam na ne dema macha allah na forme bu rafet démb lépp luy mbër indi indi na ko esaat mais dafa fekk ne yàlla ma laana rek loolu kese la du leneen. waaw man laa mu kon lu may wax rek man xale laa man xooluma benn mbër xooluma benn adversaire ku ñu ma jox rek pare naa ko bëri ndaxte laa mujj laa fi nekkal. non Lambo Lambo Lambo Lambo Lambo Lambo Lambo laa fi nekkal Lambo laa fi nekkal mais képp ku nekk si biir Lambo tamit da nga xam ne ne Ada Fass ay adversaire am potentiel am ñii la te Lambo niveau la quoi non sama adversaire si biir laamu promoteur yi xam nañ ko amateur yi xam nañ ko ndax de Ada Fass du toog ne mooy kii laay bëral ak kii kii amateur luñ bëgg a bëgg naa ko promoteur luñ bëgg a sama staff luñ d'accord nangu naa ko jeex na. sama sama mana sama sama staff ak sama encadrement sama waa équipe luñ d'accord d'accord naa ko amateur luñ bëgg a bëgg naa ko promoteur luñ tëgg luñ bëgg a tëgg pare naa ko. mais loolu am na lu ko dàq Ada Fass Mama Lamine Ada Ada Fass sa digganteeg Mama Lamine làmb du ko dàq. lu ma avance bu ñëwoon tey tey sama staff naa d'accord pare naa loolu mais ba léegi de sama sama staff duñ d'accord naa ko buñ d'accordoon tey fanaan biir côté boobu sax dañ fa fanaan waaw mais làmb laa fi nekkal daal waaw. fu koy man kay maa ngi gërëm ñëpp rek la instant bi dañoo jóge si làmb gars dañoo sonn maa gërëm ñëpp di sant ñëpp ndaxte làmb yi koo gis xam na ne métti na trop trop trop trop waaw maa ngi gërëm ñu ma jàppale ñëpp dañoo bëri macha allah mais ñun ñëpp dinaa leen gërëm dinaa leen seeti waaw di gërëm ñëpp képp ku ma ñaan rek maa lay gërëm maa lay gërëm bu baax di la sant ndaxte Arafaas dafa nekk xale mais lu topp ci ginnaawam ñëpp xam nañ ne macha allah Dakar bi yëpp maa leen di gërëm Dakar bi yëpp yëpp yëpp Sénégal ron waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw jaajëf kii mooy aada fast gungu kii mooy aada kii mooy aada fast gungu kii mooy aada kii aada fast